waa sama gars yi gis ngeen boobu ba léegi xuloo Oulita ak maam Ndiaye Savon mu ci musuma ci def vidéo parce que damaa xam sénégalais xamoon naa lu coow lu coow li métti métti métti métti ñoom ñaar dinañ juboo musuma ci def vidéo musuma commentaire ci seeni vidéo waaye uli lii bum la dalati gannaaw ay jàmm Mame Ndiaye Savon yow tam boo jotee teg say élève del am maîtrise àddina lépp maîtrise la lépp maîtrise la nañ leen bëggante te xam ne àddina bi amul solo erreur nag mënta ñàkk waaye bu erreur ñëwee ne kenn ku ne ànd ak dal loolu mooy dëgg erreur mënta ñàkk waaye bu amee ne kenn ku ne am ànd ak dal te fii àddina la kenn ku ne sa wërsëg ngay lekk ah bu beneen tee uli lii bu la dalaat maam jaay sa woyoo tamit nga am maîtrise am ak dal nit da dal